di nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di nuyu mbokk yi ma fekk yëpp dafa war naa ne sax amu fii kàddu ndax li ñu fii jot a dégg ci ay kàddu yu rafet te ci diggante yi nga xam ne moo waral tey ñu toog fi bala ñoo dugg ci loolu sax ñu yëkkati am nuyoo bu gën a kawe bu gën a tey bu gën a sell di ko jëmale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi nga xam ne tey moo jiitee njabootu sëriñ Mbàkke Kajoor di ko nuyu bu baax di ko ziar te di ko ñaanal sunu boroom dolli ko tawfeex dolli ko ak wér te gën ko fee yàggal bu baax te mu ànd ko ak njaboot gi yépp li tax moo wax ne amul fi kàddu mooy samay kilifa rek ñoo fi nekk sëriñ Ahmadu mi ngi nii di sunu wayjur li des di sunu ay nijaay ba ci ñenn ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu di sunuy sang nga xam ne ñoom ñooy sunu boroom di nu sunuy sang yoo xam ne bu leen neexoon tey ñu sang lu def seen poos yu mel noonu tax na ma wax ne amu fi kàddu waaye naqanaa ci dara yi ki ne ci boroom biir kër gi rek te ngeen cëral seen bopp cër bi ngeen ko cëral mën naa tax cër boobee ñu rafaatal mu ci lu tax ñu mën a waxante yéen joxale fi ay kàddu wax yi nag ni ma ko waxee léegi rafet na lool te yaatu na tamat la ne daanaka dara matu cee dolli ndax diggante sëriñ Mbàkke Kajoor ak sëñ Mor Anta Sali li ci mata wax ngeen ko ñu bokk balage te rafetal seen bokk ga te rafetaloon lool it seen ànd ga ki nga xam ne mooy ndaw te sëñ Mor yar ko jàngal ko mu def ko ab sëriñ def ko kilifa ba xaw ko def sax wëy jur ñu ànd ko àndeen mu rafet loolu tax na sëriñ Mor ci boppam li muy doon doon kilifaam mu yëkkati ab cër ci ak njabootam jox ko ko yàlla dogal cër moom ku ne ak sa tawfeex ja nga koy dajeel mu dajeeg moom muy cër ba gën a doon muy sëriñ Tuubaa mu cëroo ko moom itam lool donte ba mu koy cëroo di ko fonk di ko téye di ko sagoo di ko yërëm di ko taxawu di ko dimbale donte booba sax lii xew xewagut ci jamono booba dara xewagul booba ñu ngi ci cëru aada rekk lañ nekkoon waaye loolu taw fee xam la bi ñu demee ba ci kanam it yàlla def lu ñu gën a dox rekk mu gën a xam ne moom kat alhamdulilah kenn ëpp ko ab cër cëru na bu baax a baax a baax moom sëñ Mbàkke Kajoor looloo tax ba ñu demee ba ci kanam itam sëriñ bi ci boppam ba mu demee ba am cër yu muy joxe yàlla def na cër ba mu jox sëñ Mbàkke Kajoor ci cër yi gën a rëy ci la bokk cër boobu di cër bu rëy boo xam ne ñi jëkk a wax tudd nañ ko cër bu am solo ma nga la ca daara ja ba daara ja xatee ta metti mu daan wut lu mu koy mbakar feggul loo xam ne bu mbooloo mi ñëwee ba jëfandikoo lañuy jëfandikoo te yàlla dogal sëriñ bi doonoon koo xam ne daawul xëccoo daawul yàkkamti daawul gaawtu ci mbiram day tax léeg-léeg balaa ñëw sax dana ca mën a jëriñoo lam ca war a jëriñoo dana fekk yenn dong yi sant ndaw ne ko fuuf looloo tax mu daan ko mbakkat feggul dara foofee la ko tàmbalee woon di wane ba ñu jógee ca wax nañ lu bari ci digganteem ak digganteem ak moom ñoom ñaar seen diggante ci bi nga xamee ne sëñ Moor làqu na ba mu demee ndal la te mu jëli ko te wax ko kàddu yi sëñ Xaadim wax na ko léegi jërul dellu ba mu ko gën a see mu génn daara ja jox ko ngir wormaal ko te loolu bokk ci aadaam jërul dellu leer na nañ bi nga xamee ne it yàlla def na ci njabootam yépp góor ak jigéen mu séddee ko ko loolu itam muy cër bu leer naññ boo xam ne résultat bi li ci xew li ci juddoo noo ngi teg bët loolu itam la ca dolliku mooy bi yàlla dogalee mu nekk jolof te sëñ Mbàkke Kajoor nekk Mbàkke Kajoor te mu yëg yaramu doye te mu ñaaw ca njort mu yebal borom daal mu otti maam Cerno Ibrahim mu dem ci moom ca wetam toppatoo ko ba mu làqu mu taxaw ko taxaw njaboot ga ba lépp mat mu doog a dellu siwaat kon mel na ne sëñ moom moog moom seen diggante ak seen ànd dafa tàmbali ci ak rafet jaar ci ab rafetaay ba mujj ci ak rafet kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag tax na mënees naa wax ni cër bu am ci sëriñ bi du cër bu yomb waaye sëriñ Mbàkke Kajoor tam yàlla baaxee ko li ko yàlla jox ci ak njaboot te nekk ci kanamu sëriñ bi ñoom ñëpp ñu nekk ci kanamu sëriñ bi waaye alhamdulilahi rabbil alamin doon njaboot goo xam ne it njaboot gu am tawfeex la ñu ci seen diggante ak seen boroom gannaaw bu ñu yéen yaree nañ leen war a yare jàngal leen nañ leen war a jàngale tarbiya leen nañ leen war a tarbiya ci diggante jàng ak jàngale ak liggéey ba nga xam ne ñoom ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin foo ci geesu rek sa xel dal ca wet googee ba tax na kon mënee see tudd daara joo xam ne daara cosaan la joo xam ne du fay mukk ci kër Sëñ Mbàkke Kajoor kon loolu bu fekkee am na muy dox ba nëgën sii ci jamono yi ñu toll dox boobee di gën di rafet di gën di baax sëriñ Muntaxa dem moom ñu ngi ciy sant ca loolee weesu bu baax waaye mu ngi sant nag bu baaxit ci li ñu toll ndax sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo fi nekk tey nekkal fii sëriñ Mbàkke Kajoor moom yàlla def tey ñu wax ne moo fi nekkal sëriñ Tuubaa seen ànd boobee la muy baax baax ak la muy rafet rafet bii da caa sofu rek jàll wéy ca rafetaay boobee ak taar boobee lépp li nga xam ne mu ngi koy liggéey di ko defal Sëriñ Tuubaa ci wet gu mën a doon gis na nañu taxawaayam ca wetam na mu gën a baaxee ak na mu gën a rafete ak na mu gën a selle te mu xam na ne it moom njabootu Sëriñ Mbàkke Kajoor yëpp ñoo ko ànd ñu taxaw ci gannaawam li ko taxaw na nga xam ne noonu la gënee te la gën a baaxee kon nag moom li ci wàllam mooy eh, sant gu mat sëkk bu mat bu yéesu genn cant cant googu nag dafay law di law ba agsi ci ñi nga xam ne ñoo taxawal tey jotaay bii fii ci barab bii di waa Rawdu Rayaahiin nga xam ne ñoom ñoo baaxoo ñi nga xam ne ñooy njabaru Sëñ Tuubaa ak bokk yi ak taalibe yi at mu nekk ñu tànn ci kenn ngir di ko darajaale bis bu demee nii ngir di ko ci waxtaane ak di ko ci fat fàttaliku ndax xam ngeen ne waxtaan yu mel nii li muy jariñ rek mooy fàttaliku jikko yu sell yu rafet yu jëkk ya nga xam ne mag ñi amoon nañ ko te muy jikko yoo xam ne jikko yu mataroy lañu te jikko yoo xam ne it ci la àdduna di doxe te mooy dukki yi nga xam ne mooy dundal islaam te mooy dundal ak taalibe bi di nga xam ne ñun amuñu lu dul moom Euh, kon jataay yi du mën a doon jataay yoo xam ne rek dañ fi wax ay wax wax fi ay kàddu rek dem déedéet waaye lu mel ne wax yi ko jiitu ak wax ju mel ne ji sëñ Xaadim wax léegi soññewaat ci jikkoy mag ñi ak melokaan bi ak ni ko sëñ bi bëggee ak ni ko sëñ bi dundale ak ni mu sàkkoo ñu dundale ko noonu loolu lañ mën a jële ci jataay yu deme nii kon ñi nga xam ne ñoo organiser loolu itam Jawaahirul Rayaahiin ci njiitu sëñ Ahmadou mii ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi di leen gërëm di rafetlu lool taxawaay boobu te di soññee ndax xëy na ñoom yemuñu sax ci waxtaan yi rek waaye lépp loo xam ne gis nañ ne lu mat wax la danañ ko wax ba nag waaye dañ ko bind boole ci ngir mën nga fee bàyyi muy trace boo xam ne ëllëgati si nit ñi daañu gën a mën a jëriñoo ba at biy tukki ndax xam ngeen ne ay wax sax mën naa raaf mën naa mënees na koo jaxase mënees na koo euh, soppi waaye yàlla dafa dogal mbind moom dafa wér te neexatu soppi daa mën sax kon dañ leen di gën a sant bu baax ci li nga xam ne moom la ñuy taxawee di ko taxawee ci jotaay yu mel nii di sant mboolem njabootu Mbàkke Kajoor itam ndax bi bi nga xamee ne euh, Rawdu Rayaahiin yëkkati na mbir moomu yëkkati bis bi yëkkati tur moom ñoom tam njaboot gi nga xam ne ñoo njaboot suñu Mbàkke Kajoor gépp jóg nañ taxaw àndandoo def benn say def benn bant ànd taxaw ci gannaaw rawdu ba lu mel nii tey mën a am ñi fi ñi ko fekke ñëpp yaakaar naa ne kenn ku ne dana am loo ci mën a jëlee ci waxtaan yi nga xam ne moom lañ ci jot waxtaan kon loolu dañ ci dellu soir rek di sant ci tuddu sëñ bi di sant ñëpp di sant ñi ko organisé di sant bi Moustapha di sant Awdo Yaxin di sant mbooloo mi ko fekke yëpp den gërëm bu baax a baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala defal leen ci defal nu ci lu kawe suñu njort tey ak ëllëg may nu ñu màggal gii ñuy séenu ñu séenu ko ci jàmm mu agsi ci jàmm ñu defe ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ba li nga xam ne moom la ci sëñ bi deele nu man cee jot te it yàlla may nu bu ñu ko nangulee ba noppi mu may nu fekkewaat ko ay yooni yooni yoon te lépp gën a am jàmm gën a am tawfeex te lépp gën a xéewale ñoo ngi siyaar bu baax di siyaar kilifa yi di ñaanal ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu